fépp fu waaye mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew. Cheikh Mamadou Mountakha. Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké. mi ngi jotuloo ab nuyoo ci yéen. mi ngi jotuloo ak nuyoo. ci yéen ci ci yéen ñëpp. yal na ko fi yàlla yàggal te wéral ko. ñu ngi ñaan ñun mu yàggal ko fi lool te wéral ko. magam yu baax yi ak waajur yu baax yi. ba mu àggale jëfe boppam. te ma àggale jëfe boppam. mi ngi sant ñëpp. mu ne mi ngi sant ñëpp. tàmbalee ko ci jumaa ju mag ji. tàmbalee ko ci jumaa ju mag ji. mbooleem jumaa yi boote ci moom ci Touba. ak mbooleem jumaa yi nekk ci dëkk bi yëpp. ak jàkka yi. ak jàkka yi. ak biti ak biti biti dëkk bi. ak biti réew mi. ak biti réew mi yëpp. sant ñëpp. sëriñ bi nee na ngi sant ñëpp. ci ni woon. ci ni nga xam ne noonu la diglee woon liggéey bii. ñu defe ko noona te muy jëf-jëfin wu sell. muy jëf-jëfin mu am loo xam ne ajoon na ko ci liggéey bi noppee na ñun ñuy ay taalibe. bi ñu noppee ñun ñu di ay taalibe. jubloom moom moo moo moo koy àggale. sëriñ bi nag ak jubloom moo xam moo koy àggale boppam. ñaan suñu borom. nee na mi ngi ñaan suñu borom. suñu borom yàggal ko fi lool. li tax mu dajale ñu ci ci ci jumaa yi ak ngi sant yàlla bu baax a baax. ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax. ci bokk yi nga xam ne teew nañ ci barab bii. ak ci këru sëriñ Tuubaa yëpp. fu ci nekk njaboot jóge na fa. fu nekk nit bàyyi fa. ak ñu sëriñ bi seexal. ak ñu sëriñ bi seexal. ak ñu sëriñ bi defar. ak ñu sëriñ bi defar. ci wàllu baatin. ci wàllu ci wàllu baatin. fu mel ni que Cheikh Abdoul Ahad eh, sëriñ Amsa fa. sëriñ Amsa ma nga fa. ànd ak daayira xasaayid yi. ànd ak daayira xasaayid yëpp. di jàng alxuraan ak di jàng alxuraan di jàng xasida. kër Serigne Mourtala. kër Cheikh Mamadou Mourtala. fu mel ni Soxna Mariama. fu mel ni Soxna Mariama. moom Cheikh Souhaïbou. ak mboolem jàngalekat yu jigéen yi. ak mboolem mboolem jàngalekat yu jigéen yëpp. ñoom ñëpp ña nga teew foofa. sow bi bu ñu demee fii ci sowu jumaa ji. asxaabul jannati muy mbokk waa mbosooba yi. di ay soxna. mboolem seen i jàngkat ñëw nañ. mboolem seen i jàngkat seen seen i jàngalekat ñu ñëw nañ. dëkk bi yëpp. li war ci ñoom ci taalibe. li bi gis na ko. sëriñ bi gis na ko. nee na mi ngi sant bu baax a baax. daaray alxuraan itam. daaray alxuraan yi it. fenn desul. fenn desul. fu daara a nekk rek. ñëw nga wuyu si ndi woote sëriñ bi. sëñ bi da cee fasaale eh, njàng da cee fasaale ci njàng mi. waaye taxawaay yow ma arafa. waaye taxawaay yow ma arafa. loolu suñu tawfeex la. loolu suñu tawfeex la bu baax a baax. li mu bëgg lépp daal ñu ñaan suñu borom lépp loo xam ne sëriñ bëgg na ko suñu borom defal ko ni mu ko bëgg wallaahi waaw de loolu ni murid la rek xanaa waaye nag li mu bëgg suñu borom nga def baax a baax di ñaan suñu ko ay at yu bëree bëri lii rek moo di taalibe lu sëriñ bi digle ñu def ko ni mu ko bëggee ñu taxaw ci ni mu ko bëggee ñun defal na ko wala li gën ci nu mu defal na ko asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu waaye toll na tàll آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين fukki ixlaas ak benn sëriñ bi mu ne ñu def fukki ixlaas ak benn addiyee ko sëriñ mi nga xam ne moo yor liggéey bi tey waaw sëriñ bi nag mu ne bu ñu noppee ne ku ne fa nga nekk nga nga nga taxaw fa dañ la fekk ki xéewal